bismillahi irrahmani irrahim alhamdulilahi rabiilalamin walsalaatu walsalaamu ala asrafi alanbiyai walmursalin sayidina muhammadin wa ala alihi wa saxbihi ajmain allahumma axrijna min zulumaati alwahmi wa akrimna binuuril fahmi waftax alayna bimaxrifatil ilmi wa xasin axlaaqana bilxilmi wa saxil lana abwaaba fadlika wansur alayna xazaa'ina raxmatika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 di nuyu jàngalekati alquran yi di nuyu sëriñ si di nuyu mboolem ñi nga xam ne ñi ngi def jotaay bi muy seen jotaay yu wéttal def ko muy seen jotaayu daara ñu àndandoo di ci nafar ak jàng suñ mbiri diine yal nañu yàlla boole sàmm yal nañ ci bokk jariñu yal nañ bokk ci ñi nga xam ne dañuy dégg seen diine waaye amuk cawarte ci mën a jaamu yàlla ñu ngi ko doon ñaan démb ndax euh, loolu ci xéewal yàlla defal doomu aadama la bokk barke waxtu wi nga xam ne ci lañ nekk te muy waxtu woo xam ne waxtu wu tedd la ci jaamu yàlla waxtu wu tedd la ci ay taxawaay yàlla ñu yàlla boole ci ñi nga xam ne dañ koy man di saxoo di ko màng saa su nekk te daje ci ak ngërëmam mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ñoo ngi leen di siyaare bu baax a baax ñoo ngi nuyu yaayi almisbaax yi léeg ma gëj a tudd seeni tur di nuyu suñ jigéen docteur Anna léeg-léeg ñu gëj a tudd waaye teewut suñu xol ak suñu xalaat mi ngi leen di bàyyi xel yéen ñëpp ñi nga xamante ne ñi ngi bàyyi xel jotaay bi démb biñ ko yëkkati maa ngi doon waxtaane lu jëm ci wàllu julli ñëwoon naa ci wàllu wàññi julli ak lenn ci àtte yi nga xam ne moo ci am ñëwoon naa it eh, jéem a tontu ay laaj yoo xam ne jàpp ne ki koy déglu dina ko am moo tax am na sax mbokk yu baree bari yoo xam ne biñ xëyee ñi ngi laaj ak a leerlu te itam loolu ci liggéey bi la bokk ndax li ñuy waxtaane lu ñuy def la ñaare day am koo xamante ne ci xaal boobu la toll jamono ji nga ci tollee di ko waxtaane mi ngi toll ci moom di dund loolu nekk ci tukki di wàññi wala muy lu bees ci moom lu muy door a dégg wala mu bees ci moom lu muy door a dégg su mu ne dafa bokk ci rafet lool te neex ci sunna mooy nit koo xam ne day dund li nga xam ne mooy njàngalem yonent bi alayhi salaatu wasalaam nekkoon ci tukki boo xam ne dañoo daganal ci moom wàññi julli mu ñëw ak si taxaw wàññi xam ne day def sunn si waaye du ca yam mu boole kook boole bu fekkente ne fuñ maye ñu boolee fala xam naa ne li muy taxawee ci ay ci ay njariñ ci ay maana taxawaay boobu taxawaay bu baree baree bari la ala kulli xaal ki nga xamante ne daal day tukki tukki boo xam ne tudd na ab tukki ba noppi mat juróom-ñaar fukki kilomètre ci yenn ci borom xam-xam yi waxoon naa la démb ne am na ñu wax lu yées loolu lu ko gën a tuuti am na ñu wax lu ko gën a bari te dëkk bi nga ñëw di tukki dëkk la boo xam ne sa soxna nekku fa maanaam amoo fa soxna kon gan lañ la fa jàppee borom xam-xam yéen yenn yi wax ne te doo fa def lu ëpp ñetti fan ñu ne boobaa da ngay wàññi moo waxoon la démb ne bu dee yow mi nga xam ne da ngay jaabante nag di dem ak a ñëw mel na koo xam ne sa liggéeyukaay dafaa nekk ndax fi koy waxee waaye boo demee ca bitim réew da gis koo xam ne diggante dëkk bi muy dëkk ak fa muy liggéey ji ëpp na loolu ëpp na foofu soixante-dix kilomètres di dem waaye nag moom da yow da ngay xëyee ko wàcc kon yow nekkoo ci ab tukki maanaam day mel ne da dëkk rek ki sa liggéey nga nekk naka noonu yow mi nga xam ne da nekk ab chauffeur yor auto transport yi di dawal dem ak ñëw di jaabante yow nekkoo ci ab tukki nekkoo ci ab tukki ak yu baree bari yoo xam ne dugg na ci biir masala yooyu waaye jàpp naa ne buñ buñ yooyu day am loo xamante ne dañ koy déggee ci biiri wax ki nga xam ne day tukki itam euh, tey wàññi léeg-léeg wàññi dafa ànd ak boole waxoon naa la julli yi ñu wàññi ne la mooy julli ñeent ñeent yi muy tisbaar takkusaan ak gee kon am na ñetti waxtu yoo xam ne ci bis bi yoo xam ne kii wàññi te ci tukki au lieu que mu julli ñeenti raka waaye ñaari raka koy julli timis ak suba moom kenn du ko wàññi gannaaw bu ñu noppee ci wàññi julli am na beneen mbir moo xam ne moom la wax boole boole al jam'u bayna salaatayni boole ñaari julli boroom xam-xam yi dañ cee dëppoo dañoo dëppoo ci ne e, boole ñaari julli mën naa nekk waaye nag dañoo dëppoo ci ne kenn mënta boole suba actis baar kenn mënta boole suba ak tisbaar e, kenn mënta boole it tàkkusaan ak timis kenn mënta boole suba ak tisbaar kenn mënta boole takkusaan ak timis Euh, loolu moom dëppoo nañ ci liñ amul wuute te wuute ga sax du du wuute gu bari ndax ñi ci ëpp nee nañ dagan na mooy boole tàkkusaan ak tisbaar ak boole gee ak timis su ma neexoon ma ne boole tisbaar ak tàkkusaan defe naa waxtu wu ma njëkk a tudd rek nga xam ne kon mooy waxtu wi nga xam ne mooy waxtoom daa jot nga xam ne tisbaar day jot nga julli day jot nga julli tisbaar boo noppee julli tàkkusaan wala tisbaar jot nga bàyyi ba takkusaan jot nga door a julli tàkkusaan nga door a julli eh, tisbaar boo noppee julli tàkkusaan nga xam ne maanaam ñaari yëpp boole la waaye bi boole gu teel la ak boole goo xam ne da koy yëgal hmm. boole goo xam ne da koy jiital ak boole goo xam ne da koy yéegal mujje ko boole julli dana dagan bu dee bu dee ñu nekk ci aj màkka ca arafa ak musdalifa ñi nga xam ne dañoo aji dañuy boole tisbaar ak takkusaan def ko jam u diim buñ nekkee arafa maanaam bu tisbaar jotee dañuy julli tisbaar ñaari rakka buñ noppee julli takkusaan ndax day mel ni dañ leen a jàppee ñoo xam ne dañoo tukki te moo ne ci aj ga lañ nekk waaye buñ yendoo arafa noon dañuy jullee looloy sunna sa bu dee Musdalifa la dañ boole timis ak gée waaye xoolal niñ koy boolee mooy bu timis jotee duñ julli dañuy dem ba Musdalifa tombeek gée moom moo jot ñu julli timis ñetti rakka buñ noppee julli ñaari rakkay gée boole leen kon boole moom danañ ko danañ ko def danañ ko def ca Arafa danañ ko def ca Musdalifa yàlla nañ ci àgg ak jàmm boole danañ ko def ci tukki bu gudd mooy tukki bi ma waxoon léegi tukki boo xam ne kii tukki daa yéenee wàññi julli kooku dagan na ci moom mu boole tisbaar ak takkusaan dagan na ci moom mu boole timis ak gee moo xam tisbaar day jot mu julli ñaari rakkay tisbaar bu noppee julli ñaari rakkay takkusaan moo xam tisbaar day jot mu bàyyi ba takkusaan jot mu julli ñaari rakka tisbaar bu noppee julli ñaari rakka takkusaan moo xam timis day jot mu julli ñetti rakkay timis bu noppee julli ñaari rakk gee moo xam timis day jotit mu bàyyi ba gee jot mu door julli ñetti rakkay timis door julli julli ñaari rakkay gee loolu mooy jam u taqdim wala jam u tànxiir maanaam jiital ko wala mu yéegal ko ñaar yooyu yëpp dagan na ci ki nga xam ne day tukki eh, ci misaal kii tukki tey bu nekkoon ci oto bi oto bi di dem te nekk ci yoon wi nga xam ne euh, dafa bëgg a boole am na possibilité bàyyi ba wàcc bàyyi ba wàcc ndax waxtu yi may wax nii dañoo duggante waxtu yi may wax nii waxtu wu nekk dafa duggante ak moroom ci xam nga ne fi muxtaarum baar yam daroor yeje tàmbali foofu la muxtaarum tàkkusaan di tàmbalee foofu la muxtaaru tàkkusaan di tàmbalee waaye fi muxtaarum gee fi muxtaarum e, timis di yam daroori yaam tàmbali foofa la muxtaarum gee di duggee nga xam ne waxtu yooyu ay waxtu lañ yoo xam ne dañoo duggante benn bu ne boo koy julli yaa ngi ci biir waxtu moroomam yaa ngi yaa ngi ci biir waxtu moroomam moo tax ki nga xam ne e, dafa génne këram nekk ci ab tukki moom muy am yombal yu mel noonu ñu may ko muy boole ñoom ñu may ko muy boole noonu nga xamante ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam noonu la ko defee woon ci ay xadis yu baree bari yoo xam ne ñëw na ci kon boole julli dagan na ci ki nga xam ne dafa nekk ci tukki waxoon naa la ki nga xam ne day wàññi kooku may nañ ko mu boole la ñu jot laaj yu baree bari yoo xam ne dañuy wax ne man damay liggéeyi rawat ne ñi ñuy déglu ci bitim réew six heures nangam laa war a dugg fu may liggéeye waxtu sàngam laay jóge sama kër nga xam ne léeg julli gi dalay fekk ci yoon wi fekk la ci terrain bi ñenn ñi wax ne julli gi dañu fekk ci biir barabu liggéeyukaay ba nga xam ne ñoom àgg nañ naka la def waxtu julli wu jotagut moom mënoo koo julli waxtu julli wu mënoo koo julli bu fekkoon ci waxtu yi ma wax la nga xam ne tisbaar euh, takkusaan ak gee wala euh, waaw waxtu yooyu tisbaar mën nañ ko wutal waxtu wu sori te fekk waxtu wi jot na waxtu wi moom jotoon na xëy na nag julleeguñ ko moom ndax mën ngaa ñëw treize jot rek fekk tisbaar jot na léeg-léeg sax du ca àgg fekk fekk tisbaar moom waxtu wi waxtu wi tàbbi na waaye nag mën nañ koo yéegal nag ba ca treize heures trente quarante cinq ñenn ñi dem ba quatorze heures ñenn ñi dem ba quatorze heures et quart dëgg la waxtu yooyu yëpp ma wax nag mi ngi ci biir muxtaar mi benn problème amu ci bu ci jaar dënn yu jóg waaye yow mi nga xam ne nag da ngaa waroon a liggéey kon ba treize heures jotee waxtu wi jot boo ci jullee julli nga tisbaar waaye bu fekkonte ne midi moo jot nga war a liggéeyi te jàpp ne quatorze heures daf lay fekk ci biir liggéeyukaay bi doo mën a julli ndax waxtu wi daa jotagut daa bokk ci eh, charte yi tax julli gi mooy waxtu wi jot mooy waxtu wi jot su fekkonte ne tàkkusaan la itam noonu léeg-léeg bu seize heures jotee lu ca topp tàkkusaan waxtu wa day daal di tàmbulee jot waaye nag daa toll ci jot rek waaye weesoo gut nag moo tax léeg-léeg ñu yóbbu ko ba euh, treize heures trente ñenn ñi dem ba quarante cinq ñenn ñi dem ba dix sept waaye yooyu yëpp ci biir muxtaar mi la nekk moo tax euh, tollut noonu yow mi nga xam ne da ngaa waroon a dem fenn waxtu woowu jot boo ci jullee ci waxtu wi nga julli ci waxtu wi nga julli bu yooyu yëpp amul nag nga xam ne julli gi moom daa day jot fekk la ci biir barab boo xam ne doo mën a jullee maanaam foofa yaa nga fa. te waxtu yu moom jotagut jamono jang fay dem doo mën a julli doo mën a julli fi fi fi ñu la doon mën a indi la daal eh, ak mën a julli mooy waxtu yu jot xay na fekk la ci yoon wi bu boobaa am na boroom xam-xam yu daganal julli ci biir oto wala julli ci biir ab terrain wala yu demee noonu waxtu yu jot fekk le ci biir barabu liggéeyukaay ba moom bàyyi la ngay def dem liggéey mooy mën a nekk wala def la ngay def ba noppi liggéey te loola yéex a julli waxtu lay doon te yéex a julli waxtu gënut ci ab jullit bu am pexe waaw gënut ci ab jullit bu am pexe li ma tax yal na yàlla yombalal leen yombalal ñu ñu mën a dund suñu diine ndax barab bi ngay liggéeyee léeg mu am eh, doxalin woo xam ne dund sa diine ni nga ko bëgg a dunde mën naa jafe te julli ca waxtu wa jaral na lu ne borom bi subhanahu wa taala te itam jaral na lu nekk ab jullit boole julli eh, foofu lañ ko maye bokk na ci fi ko mayee ci ki nga xamante ne nii dafa nekk ca aj ga nekk arafa wala musdalifa maye nañ ko ki nga xam ne dafa nekk ci tukki tukki boo xam ne da cay wàññi julli te mu yéene ca tukki bo wàññi julli dagan na ci moom mu boole tisbaar ak takkusaan dagan na ci moom mu boole timis ak gee moo xam da koy def boole jam u taqdim wala jam u ñëwoon naa ci léegi ci teqantal la ñaari baat yooyu bokk na ci ki nga xam ne may nañ ko mu boole julli mooy jamono joo xam ne dañoo ne ci jamonoy taw ñoo ñoo dañoo nekk ci jamonoy taw wala jamonoy crise bu mel noonu nga xam ne ci misaal dañoo ñëw ci jàkk ji julli timis ba noppi bay bëgg a génn asamaan si di taw ndox mu bari moo xam ne daa ànd ci dënu wala mu xiin xiin woo xam ne xiin wi moom liñ gën a lëng ci ñun mooy buñ demee ci kër yi xiin wi day sàqi bala ñoo julli gee te bu sàqee ñëw julli si dootu yombati ñu ne kon nañ boole timis ak gee biñ jullee timis ba noppi dañuy daal di eh, julli li nga xamante ne mooy gee jam u taqdim maanaam xëcc xëcc gee ji mu fekk si timis yi ndax taw bu bari beeg dënnu yeeg eh, jafe-jafe bi ñuy teg ñi ngir ñu dellu si waat ci jàkk ji xoolal lislaam ni mu bëggee ñu jullee ci jàkka ni mu bëgg ñu daje di julli julli mbooloo ñu mu bëggee ñu daje julli julli mbooloo ba tax mu jaral ko sax mu yombalal la ñu indi waxtu wi mu jege si ndax ñu mën a julli julli julli mbooloo loolu boo demee ci bu imaam Ahmad ibnu Anbal noonu lañ ko daganale dañoo wax ne jawaasa al xanaabala al jam'u bayna al maghrib wal isaa'i jam'u taqdim bu fekkee taw bi dafa bari eh, coona tegu ci nit ñi ngir ñu ñëwaat ci biir jàkka yi ndax léeg-léeg jamono meloon na noonu boo ñëwee ci madhabu imam malik al malikiya dañuy wax ne ñoom boole timis ak gee boolek jam u taqdim lañ lañ maye waaye ca jàkka ja nga xam ne ko defee ci jàkka ja bu fekkee ngant lu mel noonu dafa am ñu ne imam Bukhari nettali na hadis boo xam ne mu ngi ca téeram ba ne yonente bi alayhi salaatu wasalaam boole na timis ak gee ci guddi goo xam ne da doon taw guddi goo xam ne da doon taw kon ngant yooyu mën naa daje ñu may nit ki mu boole timis ak gee daan na am léeg-léeg bokk na ci fiñ ñu mayee nit ki mu boole mu boole julli ci waxtu wu man di doon mooy koo xam ne dafa feebar koo xam ne dafa feebar wala koo xamante ne dafa nekk ci ngant loolu day indi ay leeral yu ci am maye googu ñu maye nit ki boole ko moo xam jam u taqdim la wala taaxiir ci feebar bu am feebar bu metti wala ngant ngant li mooy taw bu ma waxoon wala yu demee noonu maanaam ñëw ci barab xam ne ñëwaat fa mën naa jafe te ñu daje di julli julli mbooloo ci waxtu wu dagana boole ñu may nit ki mu boole li nga xamante ni mooy mooy julli gi feebar bi itam ki nga xamante ne nii dafa feebar te may ko ko eh, am na ay wuute ak i détails yu baree bari yoo xamante ne nii boroom xam-xam yi indi nañ ko ci boroom xam indi nañ ko ci moo tax ñu ne bu fekkente ne koo xam ne dafa am euh, maanaam salasul bawlu maanaam loo xam ne day toq ci moom loo xam ne day toq ci moom lu mel ne am tuur ndox te du tuur ndox toq gi jege lool mu nekk di ko faj te léeg mu dem ba laal ay yéreem ba man koo taqal te benn yére bii la yor soppi yére bi euh, xaw a jafe ci waxtu wi ñëw ñu ne may nañ ko mu boole julli may nañ ko mu boole julli ndax lott gi muy lott ci dem laa bi ak ya nga xamante ne moo ca aju ak ya nga xam ne moo ca aju indi nañ ci ay yaatal yu baree bari yoo xamante ne dugg na ci biir buntu boobu ñeel li nga xamante ne nii mooy boole li nga xamante ne mooy waxtu julli loolu daa bokk ci yi nga xam ne dañ ciy taxaw léeg-léeg ki jéem koo jéem koo waxtaane jéem koo jéem koo faram fàcce ndax moom itam ni ma koy faral di waxee ci yiñ soxla la bokk te lañu werante ci te lañu werante ci ñaari àtte yi ni mbokk yi benn bi mooy wàññi benn bi mooy boole foo agsee ci masala moo xam ne may nañ la nga wàññi julli ka mën a wàññi may nañ ko mu boole may nañ ko mu boole la ca ëpp léeg-léeg may nañ ko mu wàññi waaye nag bu ko neexee mu bañ a boole bu ko neexee bañ a ci misaal da tukki woon demoon Thiès wala nga demoon Louga tisbaar fekk la fa nga wàññi boo boolewut ñibbisi ba Dakar boo ñëwee da ngay matal nga xamante ne bu dee 17 wala waxtu julli wi rek ba muy jot laa fekk nga agsi ci dëkk bi nga xam ne fa ngay matale foofa da ngay matale su fekkoon da ngaa yéenee wàññi julli dem ci dëkk bu ñuy wàññee am ngant ba julli woo nga xam ne da ngaa waxtu wa muy waxtu woo war a fay waaye borob wàññi la woon bu boobaa julli wàññi nga koy fayee bu fekkee borob matale la woon nga toogoon fii ci Dakar. waroon a julli aw waxtu woo xam ne julli woo ko da nga koo faat nga tukki jóge fii dem ba Jurbel bu boobaa boo demee da nga koy matal boo koy fay donte gan nga fa te bëgg a fay borob kuy matal ngay fay da koy matal waaye nag boo ko amee woon foofa nga yéenee wàññi boo ñëwee ci dëkk bi ngay matale boo fay-fay boobaa borob kuy wàññi ngay fay ndax bu fi nga fa ko lebe woon foofa da nga doon wàññi yooyu ci nga xam ne léeg-léeg mu dab ma la te bokk ci yi nga xam ne masala mi la te du émission bu ñu jokkoo ba nga mën caa dugal say laaj ci biir te mbirum julli itam bindoo noonu yàlla nañu yàlla boole ci ñi nga xam ne dinañ mën a julli waaye boole ci ñi nga xam ne dinañ jàng seen diine dëgg-dëgg mbokk yi buntu bu wàññee ngi noonu ak buntu boole ci waxtaan yi nga xamante ne bëggoon nañ ko cee indi waaye ba léegi ñoo ngi ci julli ndax yi yépp ci xeeti julli yi la bokk am na geneen julli goo xam ne moom la ñuy wax jullig ajuma jullik juma salaatul juma salaatul juma farata la farata la joo xam ne sax fardul ayni la maanaam dafa war kenn mënu koo defaaleel sa moroom war nag am na ay sart yoo xam ne mooy tax mu war nit ki danaa ci ñëw danaa ci ñëw nga xam ne julli la goo xam ne buñ demee duñ julli ñeenti raka ñaari raka la ñuy julli remplacer ko ñeent rakk yi ñu daan julli ci yeneen bis yi ci yeneen bis yi kon loolu daa bokk ci eh, jagoo gi nga xam ne ajjuma jagoo na ko wuutee ko ak yeneen bis yi yeneen bis yëpp ci waxtu woowu ñeent rakk la ñuy julli ajjuma nag dañ naan mbooloo mi daje leen mbooloo mi ñëw daje luñ bari lislaam ne moom a gënal ne bàyyi leen njaay mi ak njënd mi fasaw aw ila zikrillahi wasarul bay ah yàlla nee na looloo gën ci yéen in kuntum taalamuun bu fekkonte ne xam ngeen ñëpp ñëw ñu ne imaam taxawal wax ak ñoom wax joo xam ne boo waxee ba mu yàgg nanga toog jógaat waaw ci organisation l'islam bàyyi leen nag la nga jot a wax ñu ñu enregistré ko muy xaaj bu njëkk bi nga indi beneen xaaj muy xutba bu ca noppee indi beneen gannaaw ba ñu ne ko na nga tari ñaari rakka na julli ñaari rakka waaye na nga tari ca kaw àjjuma fi mu ne imaam ca kaw lay wax te ba bëccëg la julli bëccëg la waaye alfaatixa ca kaw la koy jàng saar ko ca topp ce kaw la koy jàng ba noppi def ko ñaari raka kon am na e, taxawaay bu ca am am na xikma bu ca nekk am na luñ ca war a jànge ndax yeneen julli amu ko woon yeneen julli amu ko woon mu nekk loo xam ne kon faratala ndax borom bi moo wax ne maa faratal farataal suñ noddee dem leen julli ta te bàyyi njaay ma loolaa gën ci yéen ajuma ñu ngi ko farataale nee nañ ci weeru gàmm ci at mu njëkk ma weeru gàmm mooy rabbil awal wala rabbi saani rabbil awal ci lañ ko farataale ca at mu njëkk ma ca gàddaay ga booba yonent bi alayhi salaatu wasalaam ba mu demee Madina ca at mu njëkk moom fa demee laata at may jeex ci lañ farataal julli ajuma nee nañ ajuma ji yonent bi sallallahu alayhi wa sallam njëkk julli mi ngi ko jullee ci jàkk ju ñuy wax masjid bani salim ibn awf ca fukki fan ak juróom benn ca weer wa waaw fukki fan ak juróom ca weer wa ca la gën a siiw nee nañ ca la yonent bi alayhi salaatu wasalaam njëkk julli li nga xamante ne mooy ajjuma ca jumaa jooja am na wuuteeg boroom xam-xam yi ndax taarix moom ci li ñuy wuute lay bokk am ñu wax ne déedéet màkka lañ ko farataale waaye nag jumtukaay yi jàppandiwul woon ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam ngir mu mën a woote jullik àjjuma ca màkka ndax foofa na mbir ya tëdde woon ci dajale nit ñi di julli waaye ba mu yónnee Musab ibnu Xumayr muy ndaw li yonent bi njëkk a yónni ca Madina ngir mu jàngal jullit ñi seen mbiri diine la ko waxoon ne ko bu demee na dajale nit ñi bisu àjjuma ñuy julli ñaari raka ngir jege ko seen borom subhanahu wa taala am na borom xam-xam yu wax loolu mi ngi ci téere yi ci wuute yi nga xam ne andi nañ ko ci ñenn ñi tegtaloo ci wax ji nga xam ne Abdullah ibn Mas'ud al ansari nee na e, bi nga xamante ne Mus'ab ñëw na Madina moo njëkk a dajale nit ñi bisu àjjuma dajale leen julli ak ñoom ñaari raka nee na booba matoon nañ lu mat fukki góor ak ñaar hadis boobu imaam tabaraani indi na ko am ñu wax ne eh, julli ajuma def nañ ko ca madina lu jiitu yonent bi alayhi salaatu wasalaam di gàddaay di fa ñëw te loolu day tegtale ak farataalam wala ak yoonalam loolu moom mbokk yi mi ngi aju rek ci kañ lañ ko yoonal ak fan la taarix dana ko soxla waaye ñun liñ ci gën a soxla ci jamono ji ak bindu tay bi mooy rek xam ne farata la danaa ñëw ci détails yi ci kan la war euh, ak atte yi nga xam ne moo ci nekk ndax léeg-léeg ñu jot ci ay laaj yu baree bari ñenn ñi ne man gardien la ñenn ñi ne man pompis la bu ne ci station mënu maa dem julli ji ñenn ñi ne ñenn ñi ne yooyu yëpp dana feeñ ci biir taxawaayu waxtaan woowu ñeel li nga xam ne mooy ajjuma ak yi nga xam ne moo ci aju